mbër ginnaaw bi ñu bi ñu la nuyoo tey gis ñoo ñëw nga ci woote bi nga xamante ni say mbooloo mu ndaw le mbër ñoo ci woote ku ci nekk jëlal loxo ah, ku ci jël na kàddu mhm. euh, lan nga ci waa waaw non sant yàlla ndax li gaa yi def ni gaa ñoom ñoo ñu mag mais dafa rafet dafa rafet lu rafet lañ def te àddina dinañ xam ne nun tey dadal dale loo te donc loolu moo sa am intéressant li ñu proposé sunu président Macky Sall di nuyu ministre sport Matar Ba Macky Sall mooy suñu président moo ñu tënk moo ñu njiit donc li war mooy mu gëstu jeunesse bi xool na ñun lutteurs yi mu jàppale ñu taxaw ñu si liñ bëgg ñu am ko ñun sàccu ñu ñaanunu kenn dañuy daan suñu doole. nañu defaral stade bi ibbil nu ko ñu bëre sponsor ñoo ñu bëre ku ne dundal li nga war a dundal. that's it la jarul xeex jarul xuloo non violence dépassé nañ léegi ay violence ay xuloo wala ay c'est-à-dire quand easy moo ñu jot lu la sa liggéey mayul doo ko am kon donc li war am importance mooy. nanu jàppale doolal nu ñu nekk si ñun si lañu war a nekk mooy bëri lañ xam moom la ñu ñëpp xamee nanu dooleel jàppale nu ñu ne si bëri jëy na jaasit loolu la. jaajëf Samb jaajëf